asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur u Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen fu ngeen mën a nekk si àddina bi rek fu doomu sénégalais nekk rek ñu ngi lay bëgg di la ñaanal jàmm di wax ne que daal ah doo lay jën ndox te gis nañ ñi ngeen di jàppe ci liggéey bi ci seetaan beeg yooyu tey nag dañu seet si koo xam ne nii yaakaar naa ne ah xëy na euh, am na ñoo xam ne mën nañ ko bañ a xam ci làmb mooy xëy na ñi mujj ci làmb nii nii defe naa ne am na ñoo xam ne buñ ko gisee dañ ko xam muy Mansour Diop numéro un bu wala bu jàmm gën waaye xam naa daal yaakaar naa ba muy bëre defe naa écrit Pikine la nekkoon tey nañu fas yéene nekk séqa mu waxtaan parce yaakaar naa am na at yu bëri mu nekk ko à l'étranger rawatina Italie euh, ñu bëgg a waxtaan ak moom tey papa ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla di ñaanal yàlla waa Sénégal gépp di la sant bu baax di nuyu ñëpp Sénégal gépp bàyyiwuñu ken waaw Mansour Diop may wax ak yéen dëkk ca Pikine di rekk ca Papa xam na ko ndey ak baay. Ah, sunu bokk ndey ak baay. waaw Paala mii moo topp ci man. yow yaa mag Paala. waaw waaw fuuf maa ko mag fuuf. loolu doy na waar léegi ma continuer eh, ba tey am na solo kon daa mel ni famille boobu famille làmb la ñuy nuy suñu papa Pape Diop Boston mais di nuyu père Pala moom tam la grand manager di nuyu ahlu Pikine bi yëpp Mansour Diop numéro un boo ñu doon tënkal kan mooy Mansour Diop numéro un ci lu gàtt ci làmb loo ñuy wax. waaw am na benn sortie bu ma ko waxee barki Demba Ndiaye Mansour Diop jóob un mën Mansour Diop rakki Papa Diop dëkk Pikine yaroo ci ay tànkam fekk ko mu nekkoon champion bu ñu si signé kenn mënu ko werante ma yaru ci ay tànkam di ànd ak moom wax naa ko keroog ñu may yónni ay cigarette ki këriñak ataaya ay champion yu bari dajaloo woon fa saa kees bi ñu duppee saa kees bi jaxate bu Pikine naaru bu Pikine booy làmb bi ànd ak Mbaye Guèye Samba Diagne Ida Fall yaa ngi dégg Aliou Ndiaye médaille door ba ci Thierno njaay mii di wax ci TFM ca la bokkoon Mad Grand Madaro Thiam Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi di leen tuusal ma nekk tout tànk seen kanam di ànd ak ku ñuy wax Balla Beye ñu moromoo man ak moom ak Mbacke Ba ñu moromoo ay xale toppoon suñu gannaaw ku ci mel ni paala mi tey di ménagère ci la bokkoon doon daanaan bu noon bëre. léegi su ma ñëwee sa biir carrière euh, ñaata combat nga bëri ci sa carrière. wax naa ko bële passé te tey dafay am seede paala ngi nii toog <laughs> day am seede wax day am seede tey damay wax ne su may wax damay am nu may waxee man ci li nga xam ne mën naa ko lim ci man ta xam ko rek am na 87 combat. 87 combat. 87 combats la tax mu doonoon 87 combats xam nga loolu boo ko di wax léegi ci mbër yi xew léegi dalay jaaxal ndax mbër yi xew léegi da nga ci gis sax ku yor ay millions bëree carrière ba mu jeex du passé 20 combats wala du ko mat kon boo ko dee wax te ñu la Falaye Baldé bëri na fi 400 et quelques combats ñu la Mame Gorgui bëri na ay 400 et quelques combats ñu la Mbaye Guèye bëri na fi ay 100 et quelques combats wala 200 li ko doon waral moo doon làmb doon am. bëree doon am nga dégg na Ndakaaru gi tëgg làmb. nga dégg ne Jurbel mi ngi tëgg làmb nga dégg ne Kees mi ngi tëgg làmb nga dégg ne Bambey mi ngi tëgg làmb nga dégg ne Mbuur mi ngi tëgg làmb nga dégg ni euh, Jurbel a ngi tëgg làmb Kaolack a ngi tëgg làmb yooyu yëpp da ay raison yuy tëgg làmb ay làmb yu rëy yaay seet fu la ci neex nga dem wàll ji fa kon daan nga dëkk yooyu yëpp di bëri ji non man bëri naa fu ne ci àdduna paalaa ngi ni mooy sama seede bu ngeen pare ngeen wax ak moom ndax wax dafa am seede barki dem bi sorti ma doon def ñoo toogoon sama gannaaw ñëpp dama naan yaa fekke ñu ne waaw du dëgg Pape Thiam merci beaucoup man li may wax day leer lu ñu si signé lay doon mu doon lu leer lu ñu signé man bu dee ka bu dee kees la raison de kees boobu rek laa wax ci kees laa wax bu li ma fa bërëm ëpp na vingt combat waaw kees boo ne kees nga ne biir Tiwaawan nga ne Fass booy nga ne ba mbay nga ne ba njaay Kër Ndiob ba yaa ngi dégg nga génn foofu nga dugg biir Fass Boy Mboro nga xam ne usine Laser usine ba moo daan organise lamb ju rëy biir Mboro Lazer mooy doon directeur société bu nga xam moo doon directeur général bu Taïba bu tubaab la moo ko doon organisé di ko di di di ko di ko bégalee secteur boobu bëri naa fa ñaari combat bëri naa fa ak rakku Mayoro Fall Boy Fall bëri naa fa ak rakku euh, kii nga koy waxati euh, rakku euh, Boy Pambal. combat yi nga bëri bu ci gën a métti. combat yi ma bëri am na ci yu métti nag parce que sama combat ngonaar métti woon na trop. sama combat ak Cheikh Mbaba bu mujj bi mu mujj bëri tamit métti woon na trop. Cheikh Mbaba waaw bi ñu mujj bëri nii métti na trop yaa ngi dégg. lu métti loon si diggante ak Cheikh Mbaba. waaw li ko métti loon suñu combat ma ak Cheikh ba fekk na boobu maa ngi bëgg a bàyyi te boobu amu fu ma jàpp dégg suma fu ma jàpp te ci làmb rek laay dund te boobu Cheikh Mbaba mi ngi ñëw ci alir boo xam dafa bàyyi faas ñëw écrit Ndakaaru di xëccoog Yékini numéro un ba nekk ci top niveau. te moon booba wóor na ma ni am naa doole mais sama doole amuma endurance bu doy waaye bu fekkee ne làmb nga doon yaakaar rek doo doo delloo loxo te man mosuma delloo loxo mosuma delloo avance jour boobu damay wax sax ni Cheikh Baba bu ma bu fekkee ne wax naa dëgg rek daan dama naan daan na ma ñaar yoonaa. Ah. ci benn combat. non non non ndax bëri na deux fois te suñu premier combat daf ma daan deuxième combat bi moom mu dominé lool ci xeex ba waaw. ñu match nul mais du loo ci ba kon bu fekkee ne bu fekkee ne gore naa te nekk daan na ma ñaari yoon. léegi booy fàttaliku mu neex lool ci yow. yi ma fàttaliku mu neex ci man bëri na ndax Ibou Ndafa bëri nañu trois fois mu daan ma benn yoon stade Iba Mar ma daan ko deux fois stade Iba Mar. Robin numéro deux Sidi Cissé bu mbuur bëri nañu six fois ma daan ko cinq fois mu daan ma mu daan mu ñu match nul benn yoon Dame Suguer bëri nañu plus de six fois sa Dame Suguer bëri nañu plus de six fois. paa dëgg loolu déet daan naa ko Kayaar ñu ñu ñu ñu ñu bëre Dakar ma daan ko fa ñu bañ jël bi ñu bëre Dakar mu daan ma fa ñu bëre ñu bëre Mbuur match nul maa ngi moom ñu bëre Kaolack daam ñëwul ca làmb ja may sotti ko saafara ba deux heures ba tey ñëwul CNG bi da ko mujj suspendre neuf mois bëre wul ca làmb ja. am na solo sa diggante waa fas mas nga bëre ak Mbaye Tafa gi rakku Mbaye gi. déedéet Tafa woon carrière maa moom. Rock Mbalax wala Zal. ñooñu tabaay ñu maa leen mag la bari ci làmb man Papa Gueye laa bëreel. Papa Gueye magu magu Tafa Gueye. magu Tafa Gueye laa bëreel jaraaf tëgg suñu combat. deux fois ñu def niil booba nag Fass Pikine daaw ñu bëre. parce que boobu mbéy gi ak papa ji xarit lañ doon dañu ànd. ci bu si. kon Pikine ak ah dañ doon ànd dañ dañ wa Fass ay xarit la ñu woon Papa Diop di dem Fass Fass ñëw Pikine Papa Diop bu dee ngénte mbéy gay da ci ñëw ak ku dëkk Faas ñoom Biita Ndiaye ñoom Tubaaba Joor ñoom Birahim Ndiaye tout le monde loolu paala mi sax fekk na ko man fekk naa ko. mais lan moo taxoon rivalité bi mu metti ci diggante Fass ak Pikine at yi génn Papa Diop dafa demoon ba am ay ay de camp yu nekk ci gannaaw yu feeñ yoo xam ne si gëmuñu woon moom li mu gëm dañoo àndandoo boobu gëmuñu woon maa bi mi ngi njëkk commencé ci mbapat fan la nu mu demee mbapat yi ñu daan dajee dañ daan ñëw avec renfort Fass ñëw avec renfort Mbaye Gueye li mu gëm mooy Pape Diop gaynam la Pape Diop li mu gëm mooy Mbaye Gueye gaynam mais ay seeni xale gëmuñu woon loolu mbappat mu ñu rajo toj ko toj nañ mbappatu bay bambara paa dëgg loolu déet mbappatu bay bambara toj nañ ko ci 10 heures mooy quart tuusaloo waa Fass ñu tuusaloo waa Fass ñu ne tuusaloo waa Pikine ñu tuusaloo waa Pikine ñu fëkk ndënd yi yëg ci géew bi waa Fass yi jóg dëkkante ko peña dàqe mool ya dàqe nit ña daw sees yi jaaxaan ñun ñëwante fii yaraax képp waa Fass yi mat deux mille personnes Moustapha Guèye mii ma tëgg dafa Cheikh Baba ba ba ma ngemb dongole ba pare Moustapha Guèye daw dalal loxo Balla Beye Balla Beye dóor ko kurpeñ mu jaaxaan. Balla Beye un waaw dóor kurpeñ Moustapha Guèye mu jaaxaan waa Fass yi buddee ku daw wut si ñu fii ñu dagg fii làmp ya tàppaat ku ku gestu la nga dal ci tàppaat tàppaat di jaaxal keroog jafe gaa ñu bari na ñuy xeex ak waa Fass yi boobu nag dañoo mat nañ ñu trois personnes. ndax boobu mat nañu 500 personnes te boobu ñun 30 personnes la ñuy xeex ak ñun ba budd Pikine keroog bi muy waaw daanaka da nga naan daw la. da ngeen a daw waaw ah si parce que keroog ñoo ñëpp nag ba pare ñi moom làmb ja di waa yarax yi lebu yi dañoo leen a loon ndax li ñu toj làmb ja ñu mer ànd waa Fass yi di xeex ak ñun ah waa ak ñoom Mbay Faal bu yarax booba Fass la bokk ñuy xeex ak ñun ba budd Pikine man keroog ngemb ak tànku neen la accès budd kon daal seen digganteeg Fass fa la kalaatmaa ba amee. yamul foofu mbappatu Balla Gaye biir Guédiawaye toj nañ ko ci 11 mooy quart Fass Pikine. waaw. li ko gën a garaawal nag mooy Boy Niang dafa jóge ci àll bi. Boy Niang bu Cees bu Cees ñëw di ànd ak Papa Diop Papa Diop ñu koy encadré bu bëree ko ñu koy encadré Boy Niang tëgg combat mag Sadio Camara waa Fass boobu bu ñuy ñëw ñoom ñëpp blouson Marlboro la ñu sol. blouson Malboro ñoom ñoo fu njëkk am mal boro Fass waaw. ñu ñëw ñoom ñëpp li ñu ñëwee Papa Gueye mii samp ma tënk ko mu dóor ma kurpeñ mu bett ma dóor ma kurpeñ sama bakkan toj. lamba ja jeex booy ñaar daan Sadio Camara ñu tëgg ko mbaama faga ñu ñëw te daje ca làmb ja keroog lañ fa xeex xeex bu métti ak waa Fass yi keroog sax lamba ja nar woon àgg ca la Ablaye Naar Samb nag ak El Hadj Mansour Mbaye titre bi sport boobu moo am. Abdoulaye Niass Samb ni Alaaji Mansour Mbaye ni ko rakki Papa Diop rakki euh, rakki Papa ñi ngi yàq làmb ji ndax ñi ngi xeex ci làmb ji saa su ne Alaaji Mansour Mbaye di lañu a booree waa jaraaf équipe bu jaraaf tëgg mu nekk sama premier combat stade Iba Mar grand combat man musuma bëri deuxième combat ndax li ma waroon a bëri deuxième combat dama ko bëri ci mbapat ba ñëpp xam ma ñetti mbapat laa daan tegale benn guddi. yàq Pape Guèye fu ngeen mujjee. dañoo match nul sama buñ bi dama ci. mooy lii waaw. kon foofu la bëre Fass ak Pikine soqe ko baax yaay moo ñu arbitré papa ngañ Diagne. alaaji ngañ mu i rajo. waaw papa moo ñu arbitré keroog mu doon làmb joo xam ni kenn amul foo taxaw papa Diop ñëwul nag mbéy gay ñëwul ñu xeexaat ci làmb ji ñu jël ñu jël ma non mu asarulaa ñu jël bàll ñu jël balle bay boole ko papa gay rakku mbéy gay man ñu boole maag Ibou Ndafa ma daan Ibou Ndafa suñu premier combat moom papa gay daan bàll bay un ñu tëggaat suñu combat. muy ñaareelu combat ba bu ñu tëggaate suñu combat muy ñaareelu kombaa ba ñu match ni keroog nag revanche boobu Mbaye Guèye ñëwoon na Papa Diop ñëwoon na mu doon combat choc ñu match ni laat ci la ñu ne nag ab Abdoulaye Dar Samb ne kon nag Mansour Diop eh, kii Papa Diop ak Mbaye Guèye dañoo war a bëree ci la ñu tëgg seen combat nag ñu indi la estade Iba Mar fi ñu bëri nii làmba ja xaju foo toj ñu bëri fa match ni ñoom ñaar làmba ja toj ndax la fa daje woon dafa bëri ñu tëggaat seen revanche yóbbu na estade Demba Diop estade Demba Diop rasé bu ñuy wax sax làmb naan làmb day fees léegi man dama naan làmb feesal làmb amatul. boobu fu mu ba tey ñoom it ñaari yoon match nul looloo ca amoon. combat yu métti nag. am na solo rappel bi baax na historique bi baax na hélas léegi nag damay am foo xam ne fa lay dugg ak yow mooy euh, dañ la gis at yi passé ku mel ni booy Niang doomu De Gaulle suy bëree dañ lay gis ngay jógee Italie ñëw ànd ak moom tous sa digganteeg De Gaulle ak doomam joodu di Boy Niang waaw. loolu ba day day dafa am seede ndax seede yaa ngi ni toog dëgul maa moom ay frère lañu nit ñi dañoo yéex xam ni dëgul du rakk Papa Diop bokkuñu ndey ak baay dañ koy yéex xam ndax dañ daan wax ni Mansour Diop ak Mansour Diop ak dëgul ñoo bokk ndey ak baay Papa Diop mooy seen grand frère El Hadj Madiama Diop moo leen jur dëgg la paa noonu la daan demee fu ñu masaan jëm ñooy ànd nag mënoo muus ba dëgul di bëre fenn ko baax lu mu rëy rëy te gisuloo Mansour Diop ca kanam. loolu kenn mësu koo gis ci àdduna ma wax sama carrière ba mu jeex te tudd ma ko vingt fois ca biir carrière ba moom it mun tabax carrière ba mu jeex te tudd ma vingt fois boo ñaa ma ngénte ko nag. yaa ngénte booy bésu combat ah, si maa ko ngénte sama bésu combat ca tay ba mbay ca guddi ga ci la boo ñaa juddu Max Mbergane a ngi taxaw déggoo la ngi taxaw ñu ne ñu ne boo ñaa juddu na ñu déparé asile bu Tiwaawan ak suñu xarit bu yor oto. ñu ñëw bayal xuja bajaan ñu ne ñu ma nga matandike muy boo ñaam ñu ñëw faak suñu saafara suñu suñuy suñuy kajak-kajak maa ko ngénte di ko bayal xuja bajaan ca kees mu juddoo na ci famille bu baax boo am doole Cees la booy ñaa juddoo ii fa dëkk fa la juddoo fa yaayam dëkk fa la baayam fa la maamam dëkk ak alaaji sàmm ko ma sekk Seex Yiru Ndumbaan ku ne xam na ko foofu la dëkk foofu famille boobu la bokk bokku ci famille bu ndaw de leer laa la wax ni de bu famille daara la bokk alxuraan ñoom loolu la xam ku ne xam na Baye Cheikh Seck xam nga ko Baye Cheikh Seck mooy nijaayam kon kay jeex na wala nga ni Muzamilu xam nga ko wala nga ni wala nga ni Mudassiru leer na yaa ngi dégg ah jeex na. <laughs> Ah. waa léegi nag booy Niang moomu yàlla def na. defe naa ne yéen a ko ngénte comme ni ñu ko waxee ba mu xëy tey nekk mbër boo xam ne macha allah carrière fi mu jaaragu rafet na mais dafa dugg ci benn combat boo xam ne nit ñëpp dañ na dugg na ci guta muy digganteem ak Tapha waaw man xam nga combat boobu dama ne woon du ma ci waxati. da nga cee war a wax nag. waaw xam lu man ne du ma ci waxati. kenn xamul fu ñu jëm. laal nañu seen avance ñoom ñëpp. kenn xamul kañ la ñuy ubbi làmb. te làmb soo ko dee préparé ci suuf nga koy wax di ci wax say mébét ci suuf nga koy wax say bëgg-bëgg ci suuf nga koy wax ak mbër mi bu ñu demee ba nga xam ne déclenché bañ ñu des na un mois des na semaine deux semaines nag nga commencé ubbi sa gémmiñ ji yux ca kaw ndax day fekk nga am confiance mais fi nekk nii ñoom ñaar seeni préparation ku ci ne yàgg sa préparation mais kenn xamagul fan lañ jëm ubbeeguñu ko kon boo fi jógee di ci wax ci débat boobu maanaam day doy waar li am solo daal mooy am naa confiance moom ndax daa wax la ma waxoon mooy booy ñaa bu ko làmb jaaxalatee ci guddi yii wala mbër di ko jaaxal ci yu guddi na bàyyi. maanaam bu ko tafaatin jaaxalee na bàyyi. na bàyyi fàttaliku nga Moustapha Gueye maam Ndiambane. waaw am na bu ma seetaan de Iba Mar bi ko ñuy xeex bi ko bi ko benn la mos am ñaarul. Demba Diop la ah, la ok waaw boobu moom gis naa jé. Euh, da may laaj waaye. Euh, xam nga dina am ku la seconde ci wet ndax Pa laa ngi sa wet. <laughs> loolu moo tax. li ma lay wax mooy dafa am sax maa ngi départ sax te foo xam ne fa laa waroon commencé ndax dafa am suma rakk loolu boo ko boo ko dee nga commencé ma ko rek sama rakk bu ñuy wax Maxa Jaawara ma nga ca Italie Janaba ak rakkam ak jabaram faatu ak ñaari doomam yu ndaw ndeysaan foofu ma sama grand place bu dimanche faatu la ko naan jabar ji la ko naan wool tonton mu ñëw lépp luy xeetu lekk bu neex dana ko teg sama kanam ak ñeneen nag day joxe lekk ah ak Ali grand Ali ak Arona ak ak ak ak Boy kante Arona nag moom mu ci gën a lakkal moom saa yu ñëwee rek su ma ñëwee rek sama kaw lay ne. waaw kon ñooñu dama leen di gërëm nga foofu sama grand place la de. loolu du ko foofu du ko mën a bàyyi mu dem na na su si foofu sama grand place la foofu sama wéetalu kaay te ñoom samay rakk lañu kii nga dëkk te lu bees jabar ji moom mi nga dëkk xurnaar ñu nekk samay rakk yoo xam ne du dañoo nekk Italie mu nekk samay dañoo nekk samay rakk yoo xam ne si dafa moom dafa nekk sama rakk boo xam ne si dama ko yar ñu bokk benn koñ Pikine kon su ma ñëwee fii tey di waxtaan danaa ko tudd grand Ali sama supporter bu yàgg la wu dëpp mbappatu booy bambara ñaari tali ñu yàgg lool maam moom mu den saraxule boo xam ne si ku dëggu la yaa ngi dégg baax kon xam naa ko bu baax a baax waaw Kanté it nekk suma booy boo xam ne waa Louga la mais jantal booy la ndeysaan Arona it jantal booy la bu ma xew ba xaw ma Sacré Cœur laa dëkk xaw ma mer ma ne ko dimbali ñu bu ñu rey <laughs> waaw am na solo dëgg la ñu ngi leen di bëgg ñoom ñëpp mais tey euh, booy ñaamul li ñu ci wax leer na bu amatee ku muy ragal bu ko neexee na tekki ngembam tekki na tekki làmb bu gembam booy ñaar dara jaaxaltu ko ci làmb torturé nañ ko. tafaati nag ni mu mel nii. non déggoo ba ndax xool wi ma grand Pikine la dëkk booy ñaa école de booy ñaa barki démb la booy ñaa ma nga wullee koo ca écrit mbooloo paalaa ngi nii toog. fa lañ ko wullee. diggante ñetti ñu garaawoon ci seeni guddi. kan Malal Ndiaye Sey ak Cek Onil. ñoo ko wulli ak Tonnerre. ñoo ñoo ko wulli ba mu wulleeku di bërëg ñoom di bërëg ñoom ba mu ci mun mëntuñ ko daan bu dee xeex la Jacques Sirat lañ ko yóbbu ca ba muy gàddu saagu sixième lañ ko fa yóbbu ñu koy wax gauche gauche droite gauche gauche droite gauche gauche droite mu màgg ca. mais tafatin mi ñëpp ne daa mën a xeex. waaw tafatin war naa mën a xeex om de base la njool la te wax dëgg yàlla nag yor na qualité jëmm ju baax te it champion champion la nag. xeexam dina baax ci yéen. waaw mbër bu xeexul doo ko mën a doo doo doo doo doo mën a bëreeg moom mbër bu bu ñëwee tee boppam mënoo bëreeg moom di mbër bu nangoo xeex ak bu abbi si lu mun la kaañu jóge kaañ fi jóge léegi booba baax waaw booba baax. xeex baa baax. ah mais làmb xeex bunt la grand. kon da bëgg daal ñoom ñaar ñu xeex ba mu sax. mais non néew ma damaa bëgg ñu xeex ba mu sax ndax làmb dama la wax ne xeex buntu la rek buntu la waaw. ñoom ñaar ku dàq bëre. non mais eh, xam nga Boy Niang passinam ak salteem ñëpp xam nañ ko te Tafatine ku mënta bëri du bëri Tafatine su mënu woon bëri du bëri Balla Gaye façon bëri bu mu bëri moom su mënu woon bëri bëri Bombardier qualité bëri bi mu yor. ku dàq bëri. ku mooy ñoom ñaan ñëpp kenn ku ci nekk Sénégal yi àtte seen mën a bëree mais man li mën a juge daal mooy xam naa ne ki nga xam ne maa ko jur moom xam naa wóolu naa ko waaw. Eumeu Sène Ama Baldé yow itam ay bi Pikine lañ. Eumeu Sène mooy seen mag mooy seen grand frère def ci dugg Sénégal loo xam ne kenn mënut ko dindi nekk champion boo xam ne bu ñu tamponné signé la trempé nag def loo xam ne kenn mënu ko dindi ci dëkk Sénégal ku waxal yàlla waaw am ma seet ay moromam def na ci loo xam ne kenn mënu ko wax ay moromam bàyyi nañu làmb sax ndax ñu mënoo bëri ñoom kenn yëpp bàyyi nañu làmb waaye dafa ñëw fekk si ay rakam waaye def fa loo xam ne kenn mësu ko gis nag. mais tiitoo ci diggante mag Lac de Guiers 2 troisième non yàlla tere am ma seen bu entraîné teg boppam ci yoon mag ña mu daan woo ku mel ni bu Paala Diop mu woo ko woo ko mel ni Burkhane Wade woo ko mel ni keneen woo ko mel ni déglu ak ñeneen ak ñooñu dajale leen di leen déglu ah foofu amoo lu may ragal ndax saa su ko defee rek gis résultat saa si saa yu ko def man saa li ma gis laa wax saa ko defee gis résultat te it ñooñu duñ ko wax dara lu dul entraînement lañ koy wax entraînement doole entraînement doole doole te Eumeu Sène bu bëree doole taay bi ma gis si ma barki dem Eumeu bu bëree doole kan euh, Lac de ko daan wax naa ndax li mu def c'est très difficile bëri sa carrière boobu accès fii te dañu morom bu ñoom Balla Gaye ak ñu Modou Lo ñu naan benn jël lañ la fi daan kooku xam nga dafa garaaw loolu bëriwul ci làmb ji waaw mais dama la wax ni la Eumeu Sène day su renforcer entraînement comme ni mu waajalee yeneen combat yi comme ni mu waajalee combat mag euh, Bombardier combat mag euh, Balla Gaye yooyu noonu mu ko waajalee xam nga Eumeu Sène bu fekk nañ lay wax dëgg rek mooy wax ma dëgg rek à part Modou Lo jaar jël yi mu ko fi daan kañ nga gëj a gis Eumeu Sène daanu analyser yow laay laaj man maa lay laaj yow. man kay loolu yow laay laaj. dama ne kañ nga gëj a gis mu. ah waaw Modou Lo fi daan ñaar yu tegalantoo de. Modou ko daan ni kañ nga kañ nga gis mu daanu. du xawul gëj dafa du fa gëj daanu. loolu moo lay wan la daanaan la. Ama itam gars yi nañ fa mu dugg baaxul. waa baax na baax na Ama Baldé xale la di ñëw ci làmb li mu doon ñaan yàlla rek mooy agsi ca miir ba. bu dee miir fa mu yegg si baax mais bu bëri su bëriwul woon ci miir ba foofu it bëri ko feneen ci miir ba te miir ku fa agsi da danger nga. Modou ne du ñeexu ñebe ñeexu ñebe la. Balla Gaye ñeexu la. ah Tapha Tine ñeexu ñebe la. Eumeu Sène ñeexu ñebe la. Lac de ñeexu ñebe la ñooñoo ñoo ne ci miir ba ak Gris Bordeaux ñooñu du ñu ñeexu ñebe waaye ku xale bu ci bëri ñoom renforcement bi ngay indi ak ñoom bi ñu yor bi du ñu benn. ñii seen yaram graissé na ay kilifa la ñu. daa graissé. non new ma la graissé na de mais damay la agsi nañ foo xam ne si ñu ngi ci féex-féex bi. kon kay xanaa Modou daa bëgg daa graissé bëgg a wax. non non dama ne Modou ñoom ñu ngi ci féex-féex bi agsi nañu seen xel dal na def nañu li ñu war a def yëpp ci làmb ku leen fa mën a fekk si alir alir bu bari doole moo la fay tax nga ñëw fa fi ñëw Modou la agsi xale bu fa ñëw rek xamal ne am nga avenir ne ma dëgg la xale bu fa ñëw rek ne am na doole. Buru itam daa xaw a sonal waaw loolu day am. nga yaakaar Ama mën na koo génn Pikine. laa ilaha illallah Ama mën naa daan Modou Lo jël bu amul fenn. li may wax fii laa koy wax nga di ko dégg. làmb la dañ ciy wax dëgg gi rek Ama Baldé jeune lutteur la nekk xale bu dëkk Pikine bari mbooloo lool amul lu mu mënta def ci làmb. yii bul sa xalaat loolu ci àdduna Ama Baldé moom mooy mënta daan Modou moom loolu moom yàq sa wax la. mën na ko daan dafa fekk ne làmb la nag Modou Lo tax mu jël Ama Baldé am na fu mu ko wér dem ba nekk roi des arènes bàyyi fi mag ñi nga noonu da ngay jëli euh, Ama Baldé am na foo ko weer mais def na loo xam ne si loolu la xale bi yàkkamti woon waaw bëreeg moom. kon Ama daal daa yàkkamti woon man Ama Baldé toog nañu mu ne ma père ma ne ko ah, mu ne ma su ma daanul Modou sama carrière du ma am jàmm te boobu Ama Baldé amagul cinq combats yu mat ca Italie papa Thiam yaa ngi toog ca kër ñoom seex Ndaw damay wax bu leer de mu leer nañ mu ne ma sama daanu muuduloo ndax ñi ma mënta bëri dañoo bari père ma ne ko loolu da dëgg la mu ne ma su ma daanu muuduloo du ma am jàmm moo ma jox xaalis